nit ñi nag wax ji bëri na bëri na trop léeg-léeg nga dégg ku taxaw politicien nag politicien bu ànd ak Macky Sall ndax man li may wax awma lu ma ci ragal moom moom bu buggee wax lu jëm ci Ousmane sonkoo moom bu buggee wax lu jëm ci Ousmane Sonko amul sañ-sañu tudd sama tur danaan am na politiciens yoo xam ne man nag damay jaar ci turam parce que man duma gaaruwàlle man li may def dama ko ñeme ma ne leele ngeen gis ay politiciens yu ànd ak moom ñenn yi sax ne fii lañu askanaw suñu buggee taxaw nag parce que jaare nañu usmaan Sonko fu ne mu mënuñoo fexe ba am fuñ ko jaare wër nañu lu ne mënuñoo fexe ba am luñu ñu lu ñu lu ñu teg ci table bi sos nañoo sos a sos sos ba waaye luñu sos huit balaa midi Sénégal yëpp xam ni dara du ci dëgg léegi nag léeg nga gis politicien bu taxaw naan usmaan Sonko ci lii la bokk wala lël la bokk wala dafa contre di euh, euh, tarixa yi wala dafa contre mag ñi moo wax fii tey nii kooku di wax loolu waat naa ci yàlla ni buñ ko tegoon teg ma buñ ko tegoon teg ma laaj Cheikh Ahmad Bamba kan moo ci sa taalibe mu la ne Ousmane Sonko mi mooy sama taalibe